di tamit sunu xalifa sunu sëriñ di sëriñ Muntaxa di jiital ci nuyoo boobu nag sama mbokk yi ma mbokk dajal di mbokki waa Touba ca kanam ñu ñëw fi nag ci ndigalal sëriñ Abibu mbakke moom sëriñ Fàllu sëriñ Abibu mi nga xam ne daa jaayante liggéeyam bépp jaayante lépp ni nga xam ne la ko way juróom yi defee woon ci jumaa ji jaayante woon ko ci dundam moom sëriñ Fàllu ci léppam rek sax ci sëriñ Touba ku na ak dundam ni mu ko defee ba bi mu génnee àddina bawu fi sax lu nit a mën a mën a njabootam a a def miraas ndax alalam mm-hmm. kon nag moom bu ñëwee moom sëñ bi it daal di jël bu mel nii mm-hmm. di boo xam ne it ne murid yi yàkkamti woon nañ ko mm-hmm. ndax bu nekk am nga yéene ci sëñ Tuubaa waaye pas-pas boobu nga yor la muy néew néew néew néew jàppoon nga ne mënu ca dara kon nag bu sëñ Tuubaa defee ba ñu am buntu bunt ko mën a jaarale ak pas-pas boobu lu mu néew néew néew loolu daal defe naa ne pas-pas la boo xam ne benn murit bu ne hmm. sa digg ak sa sëñ tubaa sa jëf àgg ci sëriñ bi sa jëf ñu mën koo màndargaal ci suuf ci tubaa hmm. bunt ngi nii boo xam ne hmm. ndax sëñ tubaa kat mën ne su faa jëlee dara lu dul ci ci ci liggéeyal ko rek ndax nee na liggéeyam bii moom ci boppam lii mu am ci àddina ak lépp yàlla sama borom li mu ko fayee fii ci àddina fayee ko fële muy tawféex gi mu am mhm. Serigne Touba ku ne xam ne ne sama borom yàlla tawféex la am tawféex googu nag dafa wax ne rafextu fi xitmati tawféexu xaaliqu naa mhm. dane sama liggéey bii nga xam ne daje naa ci tawféexu sama borom yàlla maa ngi ko jëlee ci liggéey bii nga xam ne moom laa doon liggéeyal ku sell kii di Seydina Muhammad mhm. kon nag képp kuy murite nu war a daw njëkkanti liggéey boobu njëkkanti liggéey bi moo waxoon ne inna lazina saaraxoo bi xidmatim fa lahum diyaarul wastal jannati ne ñii nga xam ne dañuy daw di njëkkante sama sama liggéey bii neen seen këri yi àjjana sotti na ba noppi ma nga ci diggal àjjana kon nag képp ku bëgg àjjanay tey ak ëllëg bëgg jàmm bëgg tawfiix ak fii jamono toll kon loo man ak loo am kon daal jàpp naa ne loolee des koy def ci Touba ci kanam kon nag murit ca kanam Touba ca kanam jërë ngeen jëf liggéey bu rëy bi nga xam day liggéey seen Touba lu nu am lu dul nun dongo yi si yaakaar seen xaadim loolu Mm-hmm. ñu am ci mbégte ak xol bu sedd mm-hmm. waa dégg nga léegi ci biir kàddu mm-hmm. sëñ bi ne mbirum sëñ tubaa weesu na ab kër wala ab néeg waaye du ko yemale ci boppam rek ne day doon loo xam da koy yaatal ci mboole muritu Cees yëpp ah ndeem moom toog ngeen ba ci kanamam mu wax ngeen dégg Tuubaa te kanamam dana xam ne suñ xayma la waa këram moom ñu ko bëgg lañ loolu rek laa ci doon barkeel wajalilaayi maskani bijaayi xayri ma nabaat waajal ilaahi maskani tuubaabaat mislasmi bijaayi xayri